sa boksa su hare da nga de ma jandi ngane ribita lur sa boksa su hare da nga de ma jandi Abdou Jambar aka Poutine depuis mu lekk yàppi góor bi ba léegi amut jàmm ndax ku jog rek dis ko ku jóg rek dis ko ngeen dugg si dossier yi xool li maax la dama ko soppi full jeeg tuddee ko mata kan la noonu attack ok sen king bi attack dama ko soppi full jeeg tuddee ko mata yow lula putin def organize style kiw city nga esti ngay dis sa bi len famu mu pa dedet waji boxe bu gré la sol te lu ma si gën a jaaxal Lil am smi dafa jël way attack yeb remix ko dis ko den leen leen déglu den greatest a all time bane kani nara dagate fi furra pata jasi baje kani ata tabok sabaharon wala ata mi wa na dolil manye lil arms ni wa ata ngale kul wat ata lil arms Publafi ki amun jeriñ na fi joge pulafi sabok sa boksa su dema jandi dafa ni yam dem na be joxaale ci ki nga xamantene moy Junior King voilà déglu junior king da sorong ikari ele fata wala ni ka dog fada mate dangula suma raka crime family ngay lal te la la fata ni nga be nga niro sokoto bi atta lu ci dess na suma yon nek para para len ko ci suuf am am li benn la ma ñett mi dafa wi mama matay matay tay ma tay ma legi yow bu ma fekk la fa ma jox ma soog ma arasa yow waa mu yow bëgguloo jàmm. léegi su ma ko du wàcc. fi nga nekk di téye ko du wàcc. ak ne ala doon fi nga téye baaxul. eh wata yow laa rek. benn laafi bon nañ leer chance tu ma gaay mar la wala waan.